yaa turu sëriñ bàcc sile mi nga xam ne mooy sëriñ libaas tey ci kaw suuf waaye ci turu sëriñ muntaxa mi nga xam ne mooy sëriñ mustaf ci kaw suuf di nuyoo ci turu seen jëwriñ di sëriñ bolle si mi nga xam ne mooy xalifa kër mañaaw gépp nga xam ne ànd naag tund mbaakol gépp nag kenn desul wax kër sëriñ maxtaar si la ak mboolem kër libaas sëriñ fàllu si la ak njabootuk sëriñ omar fall si la boyo sëriñ abdou booy ba kër Abdou Ba sëriñ Bay Jaxate Touba Belal sëriñ Abdou Lahad Jaxate ak mboolem njabootu sëriñ Amsatu Jaxate sëriñ Cheikh Mara Silla ak mbooleem njabootu Kila Dara Maan sëriñ Amsatu Jaxate chef de village bu Touba Mosquée sëriñ As Dia teewal na fi waa Ndéem jag gépp sëriñ Ibrahima Sill ak sëriñ Maseer Sill ak Fallou Gala Sill teewal nañ fi waa Tayba sëriñ Modou Diané teewal na fi waa Ndiané sëriñ Mokhtar Silla teewal na fi waa Kër Masoogi gépp sëriñ Lappe Touré ak sëñ Fallou ture teewal nañ fi waa kër Lappe waa kër Lappe ak waa kër waa Càqami sëriñ Cheikh Diwane Sylla ak njabootuk sëriñ Makhtar Sylla Ndindi sëriñ Makhoudia Diakhaté teewal na fi waa Mewndu Njàmme kër Njàmme sëriñ Khadim Mbacke moom sëriñ Cheikh Say ñëw na fi soxna Maam Say moom sëriñ Cheikh Say ñëw na fi soxna Assou Mbacke moom soxna Bali it nee nañ ci turu mbokk yëpp ñi ngi lay seereel ne mbooleem loo ko batale woon ci tundu Mbakol defal na leen ko ci taraanga ba mu mat sëkk teewut yónnee na fi taraanga yi kër soxna may gépp joxe ab cotisation am li desoon ci kàddu yi dañu wax ne sëñ Saliou Sylla mii moo ko war a jottali alxuraan ji jàng nañ ci ñeenti téeméeri kaamil ak fanweer ak juróom jàng ci xasida yi ñaar téeméeri xasida ak ñaar fukk ak juróom lépp nag dañ ko def addiyee sëriñ Abdou Lahad te ñaanal la yàlla yàggal la fi yaag sa njaboot gi. sëriñ bi sëñ ma paatane mi ngi lay jox nuyoo bu sell bu tedd nuyoo bu mu tibbee ci xolam. nuyoo boo xam ne mi ngi koy gunge ñaanal la son boroom yàggal la fi lool lool lool te boole ci ak wér moo lawal nuyoo boobu nag ba mu agsi ci mboolem sa bokk yu sell yu tedd yi nga àndal mu di la nuyoo leen nag am mbokk yi nga xam ne ñoom la àndal di waa ñaxal di waa Mewndu di waa Longoor di waa Njaane dikki nañ dikkin woo xamante ne bii naka jekk yaakaaroon na ne dana bari waay nag bariwaay bi toll na foo xam ne foo giw ko foon muy leeral loo xam nag ci sa kanam la koy leeralee mu moom day jëwriñ la. ji ko ci dàqal nag mooy doon gi doon sa jëwriñ te loolu nëbbuut fuuturam àgg ñëpp xam nañ ne sa jëwriñ la waaye muy seereel mbooloo mi ni ndigal li mi ngi koy jëlee ci sëñ bàcc si la ak ci sëñ mun si la soññee rek a ci doon wàllam moo waral communiqué yu bari yeeg ni mu doxee lépp xolam sedd na ci te fas na ko ànd ak ñoom àndin waxante ne bii du weesu doon seen ndaw di ñaan nag lii nu yàgg koo def te yàgg la fee fekk te di la seere ne xolam sedd na ci yow ci biir ak ci àndam ak yow yàgg na waaye bis bu ne mu gis ci ay teraanga loo xam ne fàtte na teraangay démb ja te loolu wóor na ko du pàgguti xam du pexeem sa barke la mu lay ñaanal nga yàgg fi te wér di la dénkit boppam di la dénk mbooloo mi di la nuyoo léegi ñëpp itam di la wax ne ñoom da li ñu man mooy ñaanal la ña ngi koy def te lu ñu ñaan xeb nañu ko waaye ñaan gën a seen bopp xeeb nañ ko ci dañu koy tegaat ci sa loxo yow mi nga xam ne ju woo ak sëriñ bi nga dogal leen ca la ñuy ñaan ñu am ko la ñaan nag la ci jiitu mooy nga yàgg fi tànd ko wér laje seen wàllu bopp nag mooy ñoom ñu sax ci ak taalu bi te bañ koo génn ci biir wala ci biti di dund ci ak taalu bi si saaxir ak ci baatin ndaje mii nga xayante ne bii ñëpp teew nañ góor jigéen mag ndaw ah, boole ci def seen i addiya loolu mooy seen warteef ndax loolu lañ xamee woon sëñ Mañaaw ak njabootam de buñ leen masaan di liggéeyloo seen teen sax dañ ko daan tëj ndax ne bu kenn def ci dëkk bi te ndaje muñ mas a daje di ko liggéeyal sëriñ bi ndaje mi mel na ni mooy mi ci gën a rëy ndax ndaje la moo xam ne yàgg nañ koo soq yàgg nañ koo saxal waaye fi yow la jëmbatoo nag ba tool nii mu toll dénk nañ la ko nag bëgg at mu ne ñu fàtte daaw gis nañ ni it la xewoon daaw jéeg li xew daaw ëpp na ko li xew daaw it li xewoon ëpp nañ ko kon am nañ yaakaar ci li ñuy ñaan waaye ñaan gépp nag li leen ci gën a yitteel te gën leen cee ñor mooy nga yàgg fi naan ko te ànd ko wér ndax noonu kat xamuñu ci yow lu bari waaye xam nañ ni Sëriñ Tuubaa sa yitte ak taalibey sa ak mbokk yi sa ñoom ñi nga xam ne dañu leen di tudd nag di tudd Sëriñ am nañu sas sas wi mooy lu ñu def lu weesu rafetal juum lu ñu def lu wees dund ci taalube juum waaye nag luñ ci jot a def xeeb nañu ko te bëgg nga ñaanal leen ñu jëmee ko ci kanam ba bis bu ne ñu mën a jëf loo xam ne danañ fàtte lañ jëfoon démb ñu lay ñaanit nga ñaanal mbooloo mi ñu bennoo ndax buñ bennoo kat menn mbooloo ëpp leen ndax fi ni li teew fii matul asakay mbaakool ndax mbaakool ay tundi tund lañ ginnaaw nag la gën di alxuraan ak lislaam seeni maam donne nañ ko ca te ñu ngi cee dundal la ñu man ak taalube gi kon laneen li ci des mooy ñu gën a yokku nag jëm ci sëriñ bi jëm ci sëriñ bi nag moom bu kenn yokki bu kenn toqi na ñëpp wàq jëm àjjana waay te itam jëfi taalube moom li ci gën muy mooy mu tuuti ci bëtam ndax fi ni kat bu ñu yaakaaree ne jëf nañ rek juum sëriñ Tuubaa ña ka daa fekk gànnaar bu ñu masaan àgg ak coono yu metti ya jaar jaar ci àll boo xam ne xom-xom ya leen di jam dégg um, góomi robaale daana ci xaj bu ñu àggaa da leen daa wax ne fal takunil ahmaalu fil uyuuni xalilatan yaa xam mi ku lahiini lu ngeen ma jëfal na tuuti ci seen bët ndax ëllëg ki si biir la ngeen jëf na ma leen koy delloo te bis bu ñu leen koy joxaat ku ne luñ la ca jox loo jëfoon bu nekkoon benn da nga doon ngéej mu nekk téeméer wala ay téeméeri téeméer kon sëriñ bi yàlla na nga fi yàgg tànd ku wér noo ngi gàttal kàddu gi fii ndax sant nañ gërëm nañ gis nañ nag teraanga yi kenn ku ne gis nañ loo xam ne jommal na bëtam te teraanga ji dàq nag ci teraanga yi nga def muy tibb jiwee sa gimiñ ak yor yu di ko naan ak nekk ci barab boo xam ne féexee na woon xam sa kër féexewu na ba noppee nag yaakaar caa daje ngërëm sëriñ mi loolu yaa leen ko may yàlla na nga fi yàgg tànd ku wér wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Moustapha nee na asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Sidi Mbacke mii toog nee na li nga ñuy nuyu ci turu sëriñ Sidi Mbacke mii toog di leen wax jotli ay kaddu ci làmmiñam nee na di ñu ay kaddu ci làmmiñam di fa waaye bala bala ñoo tàmbali loolu nee na bala tàmbali loolu mi ngi fab ab nuyoom mi ngi fab am nuyoom. di ko jëmee ci mbooleem yéen mbokk yi fi te teew yëpp. di ko jëmee nag ci mbooleem mbokk yi nga xam ne maase nañ teew fi. te te te di taalibe. te di taalibe. mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp. nee na mi ngi ñuy nuyu ñun ñëpp. di le di teg nuyoo bi ci loxol sëñ Muntaxa Silla di teg nag luyo bi ci loxol sëriñ Mountakha Sylla ak sëñ Bàcc Sylla mii ak sëriñ Bàcc Sylla mii ak sëñ boole mi nga xam ne mooy seen jëwriñ ak sëñ boole mi nga xam ne mooy seen jëwriñ mu matale ko ci bokk yëpp te mu matale ko nag ci bokk yëpp di di ay taalibe di ay taalibe mi ngi nee na mi ngi leen di gërëm nee na mi ngi ñuy gërëm de di leen sant di ñu sant bu baax di di di di bég ci kendal yi nga xam ne def ngeen ko fii nee na di bég nag ci kendal lii nga xam ne def nañ ko fii. nee na fi mu àgg ci xolom nee fi mu àgg ci xolom mooy fu dayab fu dayab xol bu sedd di àgg daal. fépp foo xam ne dayab xol bu sedd dana fa àgg. seen kendal lii. kendal lii. ak li ngeen fi yendoo. ak li ñu fi yendoo. Eh, eh, àgg àgg na foofa. àgg na foofa. ci ci sedd. ci ak sedd. kon na leen wóor ne bi mu laataa ñëw fii. kon nag nañu maase wóor ñun ñëpp ne bi mu daataa ka ñëw fii. lii ngeen ko defal. lii ñu ko defal. moo ko gënal. moo ko gënal ngeen yëkkati woon ay milliards. ñu yëkkati woon ay milliards. defal ko ko defal ko ko. waaw kon ndax ni ngeen fi dajee. ndax nii nga xam ne maase nañ dajee ko fi. ñu yendu fee ña jàng alxuraan. yendoo fee jàng alxuraan. yen yendu fee jàng xasida. yendoo fee jàng ay xasida. te lépp sëriñ bi tax. te lépp sëriñ bi tax. te li ëpp solo ci noonu. te li xam ne ëpp na solo ci noonu. te nee na waxtu wu ne moom la ko sëñ bi doon soññ. te nee na waxtu wu ne. te loolee la ko sëriñ bi daan soññ. muy ak taalibe. moo di ak taalibe. moom rek la gis ci yéen. nee na loolu rek la gis ci noonu. te ne loolu. te loolu. li sëriñ bi am. li sëñ bi am. ni ko borom kër gii daa waxee rek. ni ko borom kër gii daan waxee. li li sëñ am. li sëñ Touba am. ak taalibe képp mooy njëg gi. ak taalibe képp mooy njëg buntu ba bunt ba jëm ca la la bi am. buntu ba nga xam ne moo jëm ca la sëñ bi nee na nee na. kenn mënut a romb ci bunt ba. kenn mënut a romb ca buntu ba. ba dugg ci magasin ba. dugg ci magasin ba. te te doo doon ab taalibe. te kon nag kon nag. bi ngeen doonee ak taalibe. bi nga xam ne yàlla dogal nañu doon ay taalibe. te yàlla mayoon leen tawfeex. te yàlla mayoon ñu tawfeex ngeen di ay bokk. ñu di ay bokk. yoo xam ne sëñ Touba taamu woon na leen. yoo xam ne nag sëñ Touba taamu woon na leen. lii ngeen di defit li ñuy defit muy jàng mii. muy jàng mii daana leen ko defloo. daanañu ko defloo. di ko defloo seeni maam. di ko defloo it maam ya. kon loolu. kon loolu seenub cër la. ab cër la boo xam ne yàlla ñu ko jagleel kon xam naa ne lu ngeen ko fi ñaanal rek kon xam nañ ne lépp luñ ko ci ñaanal nee na rafet na njort ne sëñ Tuubaa dana ko def nee na rafet na njort lool ne sëñ Tuubaa ko def waaw te te loolu nag la ko ci jiitu la ko jiitu te loolu nag la ca jiitu mooy mu am taalibe guñ nangu rek mooy mu am taalibe guñ nangu ak ak ak di gën a bëgg sëñ Tuubaa rek di gën a bëgg sëñ rek ndax li ñu li ñu soxla lépp ndax li ñu soxla lépp mi ngi ci biir loolu mi ngi ci biir loolu waaw yéenam àgg ci liggéeyal sëñ Touba yéenay sëriñ Sidi àgg ci liggéeyal sëñ Touba na ngeen ko ko ñaanal yeen ñëpp bu baax sëñ Moustapha nee na ñu maase ñun ñëpp nee na mi leen gërëm nee na nag bu ko defee sëriñ Sidi nee na mi di sant mi leen di sant di ngeen di def li li ngeen di li ngeen def bu a baax a baax lii nga xam ne def nañ ko bu baax a baax baax nee na xolam daal sedd na ci nee na xolam sedd na ci ndax moom wóor na ko ne ndax moom wóor na ko ne kii mu fi wuutu ki fi wuutu bu ngeen fi ñëwoon bu ñu fi ñëwoon defee ko fi nii fi nii xol bu sedd bu rëy bu ngeen di am ci moom moom la ñuy am ci moom loole nag loolee nag moom la fas yéene moom la fa yéene di ko dundal di ko dundal di leen ci sant di leen ci sant di leen ci ñaan la di leen ci ñaanal ngeen daje ceek ñu daje ci ak ak nanguk sëñ bi rek ak nanguk sëriñ bi rek ah, ndax mooy li ñu amal njëriñ ndax mooy li ñu amal njëriñ bu ko defee nag nee na bu ko defee nag nee na yéen ñun ñii seeni maam. sunuy maam. sëñ bi taamu woon na leen. sëriñ bi taamu woon na leen. daana leen def defloo. daana leen defloo. di leen defal. di leen defal. <laughs> <laughs> loolu nag. loolu nag. ab cër la. ab cër la. bu leen yàlla defal. boo xam ne yàlla moo ko def. te yéen a ngi koy gis nag. te ñoo ngi koy gis nag bu baax a baax. bu baax a baax bu baax a <laughs> loolu nag. loolu nag. kon seen daje gi kon daje gi ñu fi daje. ak cant la ci. ak cant la ci ci sëñ Touba ci boppam. ci sëñ Touba ci boppam. ci ci loolu xéewal googu. mu leen ci xéewal googu nga xam ne defal nañu ko. kon nag. kon nag. Eh, ku sant nag. ku sant nag. ñu dolli la. ñu dolli la. yàlla ñu dolli bu baax a baax yàlla ñu baax a baax a nee na daal mi ngi leen di yëgal ne. nee na daal sëriñ Sidi mi ngi ñuy ne. Eh, xolam sedd na xolam sedd na bég na bég na mi ngi ñaan daal ngeen yàgg ko fee daje ñi ngi ñaan daal ñu yàgg ko fee daje yàgg ko fe fekk yàgg ko fee fekk te sëñ bi nangul ñun ñëpp te sëñ bi nangul ñu ñun ñëpp te nag ñëpp nag mi ngi leen di ñaan nag te mbooleem ñëpp nag mi ngi leen di ñaan di leen soññ leen soññ cig taalibe rek cig taalibe rek ñun ñëpp nañ gën a jokk ci ñun ñëpp daal nañ gën a jokk jëm cig taalibe rek waaw ndax tey jii ndax tey jii lara ngeen ñaar lara nan ñaar mooy jokk ak bokk mooy jokk ak bokk ak ak rafetaluk taalibe ak rafetaluk taalibe alhamdulilah rabbil te lu ci ne yàlla déggee na déggee na ci na ci lu wóor te lu ci nekk nag yàlla déggee na ci lu wóor boo gisee yàlla naan wala si ne yasiloona maa amarallahu bi an yoosala boo bihim an yoosala ak bokk la ci jublu ak bokk rek la ci jublu ñi nga xam ne dañuy jokk ak bokk ñi nga xam ne dañuy jokk ak bokk daal na leen daal bu neex lahum uqbat daari la wax. lahum uqbat daari. waaw ah, kër gu neex googee. kër mujj kër gu neex googee. waaw ah, foofu rek foofu lañ jëm. foofa rek lañ jëm. kon nag yàlla na ko yàlla def ci ñi. kon nag ko yàlla def ci daje bi. ci daje bi ci daje bi. waaw kon mi leen di ñaanal yéen ñëpp. mi ngi ñaanal ñun ñëpp. ñu yàgg fee daje yàgg ko fee ñu yàgg fee daje daal yàgg ko fee fekk rek. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum. Amin.